Daidai a cikin mai grup tubobin miri na bayi. Como para wàccee damay faral di wax ne mbir mu nekk boo ci nekkee na nga ko gëm wane ci fulla fayda borom bi mooy maye waaye looy def te gëmoo ko pour nga am si dara du yomb ndaw Ndao Tyson buñ la waxee jaar jaaram départ lépp métti waaye mujj na dégg ruwaa doomu Saalum noonu lay mel bañkat lay doon. acca nañ gëna a sàkkuwaat ñaan fañ ko yaakaare ndax ñaan day yombal lu jafe day ajjate lu tak ñaan nak duñ ko xeeb gënaaw ko fa ngay dem si nit ne ñaanal ma kami ñaan moom seexlu benn ndam laylu kumbu tas année 97 japp 98 japp 2000 ba 2003 4 jamono bobu mohammed Ndaw tayson wara beuri Saalum Saalum a mën a far xanaa gis ñoo xam ne wallaay duñ talaan a lekk te talaan naan waaye Saalum Saalum a mën a far waay aywa boobu bu ñu day tey moo war a bëree tey jamono boobu mu ñu fekkoon jamono nawet quatre-vingt-dix-sept digganteem ak Moustapha Guèye su ko defee surga ya xale yu ndaw yi rek lañ bàyyoon sa tool yi ñëpp réex wutali télé yi <laughs> boobu ne télé yooyu ñuy wax noir balaa moo xam xam ne fa ngaa seetaan ba sa kanam rek ngelaw li ñëw su ko defee am ku yëg ci bërigo bi ne daal di wuñ antenne bi wuñ wuñ baax na baax na yow nga gis ñu ñuul kukk nag cey jamono <laughs> su ko defee ne bu daanee ñëpp daal di dégg kontaan ñu ko si loolu lañ sa am nag ndeysaan nit da bëgg sa bopp nee naa doomu Saalum warta ñaaw fenn kenn ku nekk li nga doon nañ ko gën a fonk gëm ko jëmmal ko xam na kenn ku nekk ambassade nga sa dëkk acca yéen a ngi bu mag bi tàkkusaan ngoyaan ci dimbi réew mi yemoo tey talaata fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru avril atum 2024 démb réew ñu làmb booba avant loolu na saalum dañu xamoon làmb ndax seen làmb ñoom bañ naan fanaane bëree ba bët set <laughs> loolu moo ne jàpp nga mën a jàppal pare nga pare na kenn du bett sa morom kir kir ba balaa nga koy njëlloo waxambaane bëreetul waxambaane xamoon na waxambaane lu mu demaan rek mu wane ci dooleem ak kartanam loolu moo tax ndeysaan ñu naan yëkkati càkkaar boo waxambaane ñëwee côté ba ñëwee day yëkkati ko bu baax boobu waxambaane buñ ko mayaan xale dañ naan ko dafa ndaw na nga xaar ba sa xelam jël kàttanam ak doole ndeysaan maa ngi bàyyi xel bañ gën a nekk xale booba lu ñuy wax mala yu ñuy wax fas mbaam mbaam buñ laan tëbët nga gis classement Messi da saay saay jor bi daal di taxaw di ko seetaan yenn saa yi nga xool gis seen tubay xub waxambaane am na waaye léegi kumpa nag moo bëree tut ah waaw kumpa <laughs> loolu moo taxoon nga gis ko nga xam ne nekkoon na si loolu ba mat waxambaane takk soxnaam. dana dem baam am soixante dix ans di ngénte waaye léegi bëreetul de quarante ans pour nga ngénte problème la bu la yàlla dimbaliwu tëree dab